Badio Camara mii nga xam ne moom la Macky Sall jël yóbbu ko conseil constitutionnel daal di koy tabb ngir nag mu daal di koy jiite loolee nag am nay lees waxul am nay lees waxul ci li nga xam ne moo jëm ci ñetteelu candidature Macky Sall ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien nee na Macky Sall nag mbaadu jamono ji maanaam dafa tabb Mamadou Badio Camara ngir nag mu daal di koy valider ñetteelu candidature yéen kaay gi di la Soleil nee na Mamadou Badio Camara moom la ñu tabb jamono ji moo nekk njiitul conseil constitutionnel yéen kaay ji nga askanu Sénégal ñu bari ñoo ngi laam-laamee ba xam Macky Sall dafa bëgg ñetteelu candidature waaw wala dee jamono jooje ñu baree bari wóolu wu ñu conseil constitutionnel ci la Macky Sall jël Mamadou Badio Camara daal di koy tabb ngir nag mu jiite conseil constitutionnel waaye nag ñu baree baree bari ci askan wi waaw seen xel tey na te nag ñoo yey seen xel tey ci ma Mamadou baajo Camara mii ndax nag Mamadou Badio Camara mi faagaagal Karim Wade faagaagal Khalifa Ababacar Sall ba a gestion patrimoine am maanaam wax li nga xam ne mooy moome moomeelam ndax biñ ko ko santé nag moom Mamadou Badio Camara xam ngeen ne dafa war a def déclaration patrimoine comme ni ko ministre yeeg ñeneen ñi defee waaye bañ ko ko def loo woon dafa lànk ba tëdd sa naj wa loolee moo tax na jamono ji bi ñu ko jiitalee ñu baree baree bari seen xel tey na yéen kay gii wal Walf Fadjri nee na en tout cas li am ba de Sall Macky Sall moom gaayee fi nekk di wax rek waaye ma ngi sécuriser li nga xam ne mooy troisième candidature waaye nag ndax askanu Sénégal ñoom danañu ko nangu loolee ab laaj ba tey ci biir journal bi nee na Mamadou Badio Camara mi nga xam ne ñëpp xam nañ nag fi mu jaar ci mbiri Karim Wade Khalifa Ababacar Sall est-ce que Ousmane Sonko nag moom tim nekkul en sursis loolee journal bi di Walf Fadjri moo xëy di ko laaj yéene kaay gi di source ak Sud Quotidien nee na Mamadou Badio Camara ak Macky Sall ñoom ñaar dañoo yàgg loola yéene kaay gi di l'Observateur bàyyi mbir moome nag wax ci li nga xam ne mooy Ali Kalaj gi mooy sonn gi nga xam ne askanu Sénégal sonn nañ ko ba maara day taal ci dund gu ak njëg yi nga xam ne dafa yokk ba dara day taale mii di Sénégal bu ñu waxantee dëgg dañu ko jàpp otage yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na élection au conseil des ci dimanche yéen kaay gi di l'observateur nee na élection yi amul benn enjeu li ko waral nag mooy opposition bi nga xam ne ñoom dañu koo daal di gedd yéen kaay gi di la na mii di Sénégal maanaam Sénégal bëri na ay borde Sénégal dafa leb ba maara day taale Macky Sall nag bi mu ñëwee 2012 borof Sénégal ma ngi jëlee na ko deux mille sept cent quarante milliards yóbbu ko ba quatorze mille milliards quatorze mille milliards maanaam fukk ak ñeenti junni ci ay milliards fi la Sénégal toll ci bor maanaam Sénégal li mu amee ci bor moo bëri yéen kaay gii nag nee na li ci gën a garaaw mooy Macky Sall daf koy làq askanu Sénégal yéen kaay gii de la Soleil ministre de l'intérieur Antoine Diome wax na ci inondation yi ak plan Orsec nee na lu toll ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeent ci ay bërëb yoo xam ne dafa feesoon dell ak ndox waaye nag lu toll ci ñaar fukk ak ñett libéré libéré nañ leen maanaam andi nañ sa saafara ba tey tamit moom Antoine Diome nee na am na lu toll si ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay njaboot yoo xam ne jàppale nañu leen Serigne Mbaye Thiam nee na nag askanu Sénégal dalal leen seen xel ci xaalis bi nga xam ne moom la ñu dugal ci lu jëm ci wàllum inondation yi waaye nag journal bi nee na Serigne Mbaye Thiam yeyul kenn maanaam kenn gëmu ko ba tey ci journal bi de bi Tribune nee na sa diwaanu Soumbédioune nag dafa am ay nappkat yoo xam ne dañoo jëloon gaal dugg ci biir ndox mi waaye nag ba ñu demee lu toll ci quatre-vingt-cinq kilomètres de Dakar ci la nag gaal googu nag ay vague daal dal ci kawam am na ñett ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy di ñu xibaar lu garaaw loo xam ne atta nañu ko niki démb ca tribunalum Dakar journal bi nee na Parcelles Assainies la amee dafa am benn waay boo xam ne dafa jël ay photo yoo xam ne jabaram daf cee def yaram mu neen benn waay moo jël ay photo yoo xam ne ay vidéo yoo xam ne jabaram daf cee def yaram mu neen mu jël ko nag envoyé ko ab jarbaatama waaye nag bam ko envoyé ab jarbaatama ba pare dana ko nag jéem koo chantage daal di ko koy tëddee loole nag lañu ñu atte ca tribunalum Dakar mbir mi garaaw na yéen a kaay gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu Mami Doura Diallo mi nga xam ne moo doon am doom ñàkk bakkanam ca diwaanu Kédougou procureur moom nag daat nay dugal ki nga xam ne mooy gynécologue be maanaam gynécologue bi nga xam ne moo doon suivre Mami Doura Diallo kookee nag boobu muy tuulee musiba ma bëkkuma gu rëy dana nag gàllu ci ak ndodam ndax nag procureur bu gu def ko dugal maanaam dugal na ko niru ba tuuma yi nga xam ne moom lañ gàll ci ndodul gynécologue bi moo garaaw waaye nag négligent violence bu yéeme bu doywaar ak sàggante ci bopp moo ci amaat procureur nee na sàggante bi nga xam ne moo am ci li nga xam ne moom la gynécologue bi doxalee loolee moo jégg dayoo waaye tamit li ci garaaw mooy jëkkëru mami Dura Diallo mii bi mu ñëwee dafa wax gynécologue bi ne ko ay waay teg maa dimbali ngir yàlla sama soxna sii nga daal di koy na waaye nag gynécologue bi faalewu ko amu ci benn sentiment ma na la gis nga yërmaande sax amu ko ci continué moom gynécologue bi di def li muy defa maanaam jëkkëru ndaw si di